Hmm. donc recrutement bi ñu ma doon wax kon yow la kon yow la jël yow jiba yow la jël pour nga saaga Pastef hmm. ok léegi toogal jiba aw noone aw añil façon bu engaa ku caami caam amange butumbu ku cami bari en jaa ku cami cami none mujum mugel pastef ou bien mugel ousmane sonko bukana be tinge yene ya usenu to ko est ce que tu as bien bel et bien compris fi amo fi morom xam nañ fi nga dëkk xam nañ fi nga liggéey da ngay jaay añ loolu ñëpp xam nañ ko xam nañ nga wakaam nga dëkk ñoo la gën a capable ñoo la gën a pare ñoo la gën a réew gis ngeen ñi koy tontu kii déggu li ngeen koy tontu de non déggu ko ndaxte olof muy làkk sax dañ ko koy bindal gis nga nga taxaw di saaga Ousmane Sonko ñu lay fay ay deux cent cinquante mille di la ko wéef di la ko orange mu ne aadamoo di la jox xaalis ngay saaga Sonko dinañ innamaa sa ndey est-ce que leer na yow ku yabaate nga ku réew nga man nag li la patriote yi di tontu fii di la di laam-laame yow moo ma ci dul fekk dangay joolaa may joolaa te damay araw sa ndey est-ce que leer na put añila aw tan puti añin en ya fullata fooli ko tingut fof a e solima yoyde ma ne baake ne e, e, e tallal ɗo momo curorol jowla da tata ɗum ɗingal yippolle vewi kando mi aromage yo est ce que leer na leer na j'espère que ne lima lay wax yaa ngi koy dégg yow bu dee yow yaay doomeeraam bi ñu fay pour nga génn di saaga Pastef di saaga Ousmane Sonko man maay gaynde Sonko man maay joolaa bi nar a araw sanday midi matin soir fii ci TikTok bi

jikeram jak jikeram jak mu xammeem jak tu n'as qu'à me regarder bel et bien jikeram jak mu xammeem me ingi ge bel idiole meeting e jankari nga ya midi meeting yo matin meeting yo soir et puis rien ne sort est ce que yaa ngi dégg ma lay wax bu dee réewal ne ngay jaay ñoo nga gën a réew aller retour man xala dama réew ba ci terminus bala commencé yar gën am yar mais gis nga fi tuddité Ousmane Sonko di wax ci mom naka sudul billaahi lipp lèvre bi laa jël lipp lèvre ko sëb rus naa ñu may seetaan moytuma ah. moytuma gune gi moytuma sa ñaawaay bi sa woowaay bi jigéen day fees sa woowaay bi kenn xamul luy niru waaye mer